yaatu bi ci mhm. xam-xam bu màcc bi mhm. mu gëñoon a génn loolu mhm. waaye xam naa ne comme ni mu ko daan defee daa daa nekkatul woon Sénégal ndax moom daanaka li muy toog Sénégal bariwul waaye bala ñoo sori jàmm li ñuy ñaan fii ci Sénégal aca jërë ngeen jëf mbokk internet yi Dakar Instant mbégte kontaan leen am saa su ne di jàkkaarloo ak yéen ci émission bu mag bi ñu gën koo xam ci émission Mara nee naa leen ki ñu jàkkaar lool wala ki ngeen jàkkaar lool kenn dootu ko présenté fii ci Dakar instant muy Serigne Cheikh Niane euh, ci xam-xam bu yaatu bi ci xam-xam bu màcc bi mu gëñoon a génn loolu waaye xam naa ni comme ni mu ko daan defee daa daa nekkatul woon Sénégal ndax moom daanaka li muy toog Sénégal bariwul waaye bala ñoo sori ci waxtaan dañ koy bàyyi mu nuyoo képp koo xam ne yaa ngi jàkkaar la moom fii ci Dakar instant Serigne Cheikh nuyu nañu la alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah سيدنا ومولانا muhammad إمام حبيب wa ala alihi wa sahbihi mhm. ñu ngi len nuyu di len siar di ñaan Serigne Mountakha mak khalif general kul murid yalla yagal ko fi ak mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Bamba khadim Rasuul gi yëpp mhm. di ko ñaanal yenen tarixa yi nga xamne ñi ngi fi ci bir senegal mhm. du feddale suñu diggante suñu kóllëre suñu diggante ak yeen di ñaan suñu borom def jamm ci senegal yalla senegal sax euh, bismillah jërëjëf nuyoo bi am na solo. Mm-hmm. waaye sëriñ bi sama ne wax naa ko ci sama nuyoo léegi. Mm-hmm. jamono ji daa mel ne nekkoo fu woon de. alhamdulilah ñun moom daanaka suñu toog ci biir réew mi bariwul. Mm-hmm. yeneen voyage yeneen voyage yoo xam ne. Euh, yeneen ñu xonq ñoo ñuy soxla ndax nit ñi xam ne ñu ngi biir senegal nit ñi soxlaa. noonu la ñu yeneen di soxlaa. moo waral suñuy euh, gëj génn ci. émission yi. Mhm. di wane lenn li nga xam ne mooy xam-xam. Mhm. voilà alhamdulilah. jërëjëf euh, kon niñ ko déggee. Mhm. nit ñu weex ñi ñoo ko soxla moo taxoon mu génn. waaye tukki bi daa mel ni sëriñ bi dama ndax dama fay gis ay bagages yu bees daa mel ni sëriñ bi am na yu bees yoo indi. alhamdulilah tukki bi moom. tukki la woon boo xam ne euh, wut xam-xam taxu ko woon a jóg. li tax woon a jóg mooy dem jëflante ñi nga xam ne ñoom la ñu waroon a jëflanteel. waaye lii moom ay bagas la yo xamne ne ku ne xam ne na ci man. kep ko xamne xam nga ma war nga war nga xam ne man mystique mom alhamdullilah rabbil alamin yàlla sun borom. jagleel na mako ci walu mystique googu sa la bëgg ñu waxtaan ci ndax ku ne mystique. wax ci jamono ji ñu toll muy élection. ñu ngi jëm ci élection maire yi. muy élection législative. te defena wër wi buñ ci génné rek ñu ngi jëm ci campagne yi jëm ci élection yi. ndax am na ci ay politiciens yoo xam ne yaa ngi jëflante ak ñoom. waaw loolu bari na même bu dul ma euh, élection maire yi sax yàlla suñu borom dimbali nañu ba nga xam ne. Mhm. Euh, wax naa la ko sama biir wax sànq bu dul ñii sax yàlla boole na ma ak ay nit ñoo xam ne. Mhm. mën nañ leen jënd ci wàllum teraanga. Mhm. mën leen a jënd ci koom àddina. te ñooñu suñu borom dimbali nañu ñuy jëflante ak ñoom. loolu nag euh, képp koo xam ne yàlla bëgg dimbali na la pour nga bëgg koo jël. na nga hmm. ko li nga hmm. xam ne mooy tuur deretu gileem. Hmm. deretu gileem. képp koo xam ne sëriñ turloo na la ko. ne la wóor na élection yi di ñëw da nga bokk suñu koy perte. deretu loolu moom deretu giléem képp koo xam ne tuur nga ko. ndax baaxul ci fal. kenn warul euh, di xëccoo dara. bëgg caa falu di wut deretu gileem loolu mënul nekk. mais sëriñ bi est-ce que ci ñi nga xam ne ñu ngi xëccoo wàllu maire yi. tey lu ci mel ni mairie Dakar. Mhm. mel ni Diouf Sarr. Mhm. Barthélemy Dias ñeneen ak ñeneen. Mhm. waaye Diouf Sarr ak Barthélemy lañ ci ñoo ci gën a fës. est-ce que sëñ euh, koo xam ne jàppal na ko tànk. déedéet euh, am na ñeneen ñoo xam ne yàlla dogal na ñi ngi jëflante ak ñoom suñuy colère woon depuis yàgg na trop. mais ñi ngay wax nii moom amul kenn xaw xam ne man ak moom am na yenn relation yi. ba tax na ma koy jàppale. mais amoo loo gis ci ñoom. li ma gis ci ñoom. bari na ci ñoo xam ne élection yi di ñëw dañ koy perte parce que ki nga xam ne moom ngay xëccoon mm-hmm. mën nga koo ëpp mën nga koo ëpp xaalis financement mm-hmm. quartier boo dem nga finance li ngay finance moom mënu koo financé mm-hmm. yaa koy ëpp mbooloo ba nga naan kii doyu ma waaye suur day ñëw rek na la wóor ne sëriñ bi nga xam ne moo koy ñaanal mën na koo luxusal carte ga duppandi ko carte ga nga naan waaye ji fan la ma jaar moo tax ma ne la du ñuy luxus la carte gi dañ koy wëlbati waaye nekkul loo xam ne finance la wala loo xam ne bari mbooloo la. élection mystique la. ci élection yi Bart diggante Barthélémy Dias ak Abdoulaye Diouf Sarr kan nga gën a gis moo moo war a mën a jël maire Dakar. alhamdulilah Barthélémy Dias nag. nekk na nit koo xam ne mystique am dafa des cent pour cent. dafa des. nekk na nit koo xam ne ku am tur la. Mm-hmm. mais mystique am moo des parce que dafa war a am nit koo xam ne dafa war a am mystique complètement mm-hmm. foog ñu samp ko yaa ngi dégg mm-hmm. xam nga sëriñ euh, wróotoog sax ci internet di wax nit naan kii mooy falu kii mooy falu loolu yenul maanaa te yow mu toog ci internet bi ne kii mooy falu nga ne kii moom euh, day perte wala nga ne kii mooy falu wala nga ne kii day perte yow nooy waxee ne kii day perte ba pare nga wëb dikuwaat ne man mën naa fal doomu aadama loolu kon xam ne lu sigul mhm. waaye li ma la xamal li wér wur mooy mhm. képp koo xam ne élection moo la tax a jóg muy gañe ab dëkk mhm. fa nga nekk nga bëgg a jël li nga xam ne moom mooy dëkk booba bu la yàlla dimbalee ba nga ñëw si man ne la wóor na loolu moom euh, alhamdulilah yàlla am na lu ñu ci may kon sëñ Cheikh dafa am euh, loo xam ne boo ko yoree mooy falaat waaw muy affaire bii nga xam ne kii xëccoo nga xam ne président nga bëgg a doon. Mhm. moo xam maire nga bëgg a doon. Mhm. moo xam nga nekk nga bëgg a falu directeur entreprise. Mhm. may naa la dee ko jiital ci sa biir yére guddi bu guddi lay doon lundi vendredi bokk ci bis boo ko defee de géyal naa la ci yàlla doomu aadama mystique bu mu mën di am ci àddina fu mu mën di dem ci àddina may naa ko ne mën naa dem fii ba Inde. fu mu mën di jaar ci àddina da nga falu ci kàttanu yàlla suñu borom te loolu kenn mënu dara. parce que lii li ñu koy liggéey ñun xam nañ ko mooy lii nga yor sa loxo nii lii ci wàllum falaate lay dox képp koo xam ne bëgg nga ko la fal mm-hmm. yéen maire yi ngeen xam ne da a tardé mm-hmm. ñàll ngeen ci sëriñ ba tas mm-hmm. fa dem ñu gañe leen yéen a ngi toog mënoo leen a nelaw mënoo leen lekk ndax yéen a ngi xalaat ne élection yi dañoo perte nañ ko képp ku jiital lii ci sa biir yére ne la wóor na ki ngay xëccool da nga ko gañe loolu du ma ci sax détail détail yu bari. ah moom sa biir yére nga koy def. sa biir yére nga koy def. Mhm. guddi ba guddi lundi vendredi bokk ci. di far rek moo ko tax a jóg fal mhm. képp koo xëccool. Mhm. moo xam mu nekk wàllum carte. carte yi gars yi di def. nga boole ko mbooloo. lii foqet la ci gàttal. ki mooy foqet. ki mooy foqet. moo xam li nga bëgg da nga koy am ci kàttan yàlla suñu borom. jërëjëf kon dégg ni mu ko waxee ne waaye tamit eh, tey moom xam naa ne tey eh, dama xaw a sob dama fee gis genn kànnaar gu nu ëw mhm. kànnaar googu sëñ bi lan mooy njariñ alhamdulilah lii ci wàllum noob lay dox. noob mel ni. nga xam ne da nga wax turu nit ki boo waxee ba pare nga waxaat ay turam. Mhm. wax trois fois boo ko waxee trois fois nga jël ko dugal ko fii nga jël caabi nga tëj ko lépp loo bëgg am ci moom. Mhm. moo xam xaalis la moo xam loo koy laaj. lépp loo bëgg am ci moom wala nit ko yor ko rek. Mhm. ci kattanu yàlla kooku bu àggee rapidement la. Mhm. bis boo ko defee da ko tëj ba pare. Mhm. parfum bii lay àndal moom ngay jël ñu boole ko ñaar yoo xam ne sunguf la. nga def ci turam ak turu yaayam nga sankoo ko. bu dee nit ku weex ne la ne kooku du fanaan. li nga bëgg am ci moom dañ koy am xam nga xanaa xamoo nit ku weex kenn du ko nopp. kenn du ko nopp. déedéet luñ koy def. alhamdulilah euh, da dégg. nit ñëw ci yow sax léeg-léeg naan la man dem naa fu ne ci àddina mhm. dem naa ba si dem naa ba Inde ñaandu naa si nit kii mënuma koo jàpp mhm. dem naa ci sëriñu diw ñaandu naa ci nit kii mënuma koo jàpp mhm. leen moo tax kii mënuma ko jàpp nit ku ñuul mu gën a neex a jàpp ka euh, tubaab ñooñu li leen di jàpp mooy dañ leen di xaftal ah nit ku weex dañ koy xaftal waaw waaye kenn mënu koo jàpp sëriñ bu toog fii ci internet bii ni mën naa laa jàppal ab tubaab gi naa la ci yàlla waxul dëgg lu waral loolu. tubaab kenn du ko jàpp. tubaab dañ koy xaftal. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. am na loo xam ne da nga ko liggéey ci àlluwa xaañar teg ko ci am looy sikkar. Mhm. jër ay rawaxaanam boole ko ci xaftal tubaab bi. mu dëlmal kooku lépp lu ñu wér ci wàllum alal jox ko ko léegi boo ko xaftalee nag. mooy waral tubaab bi du nelaw. Mm. nga xam ne li nga bëgg am ci moom. da koy am ci moom rapidement. mais nekkul loo xam ne da koy bind. wala mu nekk loo xam ne jaaro la. wala nangam ak nangam tubaab ku ñuy xaftal la. Mhm. mais kenn du ko jàpp képp ku ñuy ñaanloo ci wàllu jàppal ma tubaab bi. ne la mhm. wóor ne. Mhm. kooku ba ilaa yu mi diine doo ko mës a jàpp. jërëjëf kon dégg nga leeral bi am na solo tubaab kenn du ko jàpp dañ koy xaftal. waaye sëriñ ba tey ci yi ma seen sànq seen naaf lu mel ne dunku naat. loolu luy njëriñam. alhamdulilah loolu. Euh, euh, loolu meles la. mu ngi noon daa mel moom laay seen noonu. mu nekk nii. meles nañ ma dara gis ko sax problème la. bépp sëriñ boo dégg mu naan gàllaaju meles amul. wala bépp nit boo dégg mu naan la gàllaaju mhm. ne moo amul meles. lii mooy meles. meles moo ne nii. Mhm. moom boo ko takkee daal da naan mes. boo ko takkee loo bëgg ci nit ki loo bëgg def ci sa àddina. Mhm. def ko te nit du rek bët. ah bii moom garaaw na de. lii lañ wax meles. lii nag du ma ci détail parce que waxu téléphone la du ma ci détail ci ay internet aw ma ko. fa laa yam kon loolu leer na du ma ci détail waxu téléphone la ndax day bañ ñiy pirate piraterie yi pirate ko. waaye sëriñ bi gis naa fi tam ay ndombo. gis naa fi ndombo gu xonq gis naa fi ndombo gu noir blanc. gis naa fi ndombo gu weex. ndombo yi lan mooy seen njëriñ. waaw alhamdulilah doomu aadama ci boppam. léeg-léeg yàlla nattoo ko mu ñàkk a kaaraange. ñàkk kaaraange trop. Mhm. nga xam ne da ngay toog fii sànni ko kortu léegi balaa vingt mu jàpp. Mhm. wala nit bi tourné ko léegi jël alalam léegi balaa vingt mu jàpp. Mhm. oho yàlla nañu yàlla ci ñàkk kaaraange. amiin yaa ñàkk kaaraange moo waral des fois nga am kaaraange. nit na la kay dugg sama oto ñu voyage wala nga dem bay dugg ci oto bi te sante oto ba fees ñooñu ba ñoo àgg ci appuyage bi yàlla dogal oto ba def soog. en général ñooñu ñi ñu am kaaraange wala nga dugg ci sa oto war a voyage yi oto bi panne. Mhm. wala nga war a dem kër nit fekk na ki ngay fréquenté ñooñu baaxuñu nekkuñu ay nit ku jub. Mhm. nga war faa dem ne bu mu xëyee dem fa pour fréquenter ak ñoom mu nga xëy rek daal di feebar nga xam ne yow suur bi ngay feebar police dafaa ñëw daal leen ramasser ñoom ñëpp yóbbu leen te yow suur boobu da faa waroon dem mais malheureusement da ngaa feebar ba sa yaram matewu ko. Mhm. mooy am kaaraange. ñàkk kaaraange nag moom lu bon la ci àddina lii képp ko takk si àddina mhm. génn la ci yàlla sëriñ boo yaakaar ci àddina jox ko sa tur jox ko sa turu yaay jox ko sa sant nga ne ko liggéey ma bépp sëriñ boo xam ne liggéey na la ba jàpp la mhm. doonatuma suñu seex de kon bii daal mooy mooy mooy sécurité cent pour cent moom bii mooy sécurité cent pour cent mooy doomu gu xonq coow loo am lu mu rëy rëy rëy hmm. takk ko te dal te noppi toog xool seetaanal ba xam coow la fan lay mujj moom ndomb gi moom ndomb gi macha allah ndomb googu doom yi mooy kaaraange cent pour cent mhm. bii mel ni am der gu noir et moom mhm. lan mooy njariñam mooy ndomb gi alhamdulilah nomb gi ndomb la goo xam ne li ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne dañuy carte ñii carte maanaam ñuy jouer pari nga xam ne dañuy carte maanaam dañuy carte. Mm-hmm. carte bi nga xam ne dañuy carte mais saa yuñ carte rek dañ leen di gagné. Mm-hmm. nga xam ne ñoo dem mënuñu mujj a garaaso bëgg di carte. Mm-hmm. boo ko takkee foo mën di nekk ci mbooloo wala foo mën di nekk yaay gagné. moom daal kon léegi mooy ndomb ak ndam. ndomb ak ndam loolu mooy li nga xam ne moo ko tax a jóg. waaye li ma la xamal li wér te daal mooy. Mm. nombre yee gis ni amul benn nombre goo xam ne nombre gu notaire la nii rek parce que yëpp dafa nekk nombre yoo xam ne dafa efficace. te nombre yi ku ko bëgg am nu muy nu muy def. nombre yi ku ko bëgg am nu ñuy def mooy dañuy xool sa tur ban jour nga juddu. Mm-hmm. lan nga war a def yan sacrifice nga war a def. Mm-hmm. fan nga war a jaar da ngaa war a sangatu wala da ngaa war a saraxe wala da ngaa war a sangat nga takk ko ñu doog la koo jox. kon ndomb du doon ndomb waaye xale xale koo xam ne xale la. Mm-hmm. jeune comme man. du ñëw ma yëkkati ndomba gi di ko jox loolu lu ma ko def. lu waral loolu. parce que man damaa xam ndomba gi ndomba ak lan la moo tax du ma ko jël rek di ko jox n'importe qui. Mhm. képp koo xam ne maa la ko jox rek am na lu tax ma jox la ko. alhamdulilah bëgguma cee sori. macha allah. Mhm. kon ba tey dégg nga ndomb goog nee na bëggu cee sori bala mu la koo jox te faw mu seet ko seetaat nañ ko seetaatal ko. Mhm. doog ñëw ci doog la koo jox. Euh, gis naa fi tamit geneen ndomba ndax ndomba yi ñett la gis naa fi goo xam ne am na ñetti petaaw. bii moom luy luy njëriñam. alhamdulilah nomb gi mooy nomb goo xam ne. Hmm. nit ki dafa jékki-jékki rek ñu tax ñu giñi ko alal yu bari ne alal ji dafa détourné kees. Hmm. wala gouvernement boo xam ne dañu koy takk ñu ne dafa détourné nangam. Hmm. wala société entreprise banque dafa détourné nangam. wala ñu ngi may toppee ay bari yu baree bari. mënumaa nelaw mënumaa def dara. takkal nomba gi. boo ko takkee nomba gi dina leen xaftal wëmbal leen si yow ba lépp loo xam ne amale nañ ko rek ñoom dinañ ko mujj fàtte. waaye nak boo koy gëlëmal seen xel day gëlëmal seen xel nom bëgg yi gëlëmal moo ko tax a jóg hmm. képp koo xam ne da ngaa bëgg gëlëmal nit hmm. nga bëgg dem ci moom laaj ko dara ba jox la ko léegi-léegi takkal dem ah moom ndomba gi doy na waar képp koo xam ne da ngaa amee nit ay bor yu baree bari hmm. takk ko nga monte ko nga dem taxaw jàkkaarloo ak moom boo ko takkee day fàtte bor bi képp koo xam ne dafa laa en général bor bi bor bi bor bi woo ko téléphone nga ñëw nga toog nga takk ko nga toog nga waxtaan ak moom waaw xaatim yi lan mooy seen njëriñ. xam nga yàlla suñu borom. dafa am ñoo xam ne daf leen a may. dafa am ñoo xam ne daf leen a may alxuraan am na suñu ñoo xam ne alxuraan dafa nekk seen deret. may leen sirru. secret mbuut. nga xam ne doomu aadama lu mu bëgg a def daf koy def. ki la ñuy wax basmala. douze mille bismillahi rahmaani rahim la. douze mille basmala moo nekk noonu. gis na kii képp koo xam ne defal naa ko ko. yaa ngi dégg. bii mooy douze mille bismillahi rahmaani rahim. gis nga ko. Ah. yaa ngi gis. gis nga ko. Mm-hmm. kii sangatu sept jours la. sangatu juróom-ñaari fan. ma boole ko ak parfum yii. boole ko ak parfum yii. yaa ngi ci kaw. Mm-hmm. wala déggoo ma. Mm-hmm. maa lay dégg bu baax. boole kook li ma ko war a booleel boole ko ay cuuraay yi nga war a suul nga sangoo ko mm-hmm. nekkal ba États-Unis nekkal ba Abidjan nekkal fu la neex mm-hmm. bu la neexee entreprise ba ngay liggéeyee yow yaay nekk directeur ba te ay tubaab ba koy moom te yow yaay doon directeur ba ah loolu dama lu bees la lu may doo a dégg képp koo xam ne yaa ngi Dubaay mm-hmm. wala foo mën di nekk ci àdduna pour bëgg a jiite ay nit ñu weex. Mhm. ngay dresser nit ñu weex ñi di leen fay. Mhm. nga xam ne yow lañuy jiital ci lépp. Mhm. ma defal la ko dama ne yow ci sa bopp yow yaa doon directeur ba. kon ñoo ko dégg waaye nu mu nekkee nii ci boppam nu mu nekkee nii. noonu lay ànd ak xalwatu trois jours. ah day ànd ak xalwatu ñetti ànd ak xalwatu trois jours yoo xam ne dañ lay tëjul liggéeyandoo. bis boo ko defee ci àddina. foo mën di jaar ci àddina da nga nekk multimilliardaire loolu yënul maanaa ay mhm. milliards milliards milliards ngay am. Mhm. macha allah jërëjëf kon dégg nga euh, loolu basmala yi njëriñ li ci nekk. waaye sëriñ bi xam naa wala ñoo jeexal ndax li ñu dese ci waxtu bareetul. waaw dama fay seen tey nga yor gën. waaw gën nga yor sëñ bi te gën moom koy ak kuur ko ko yor xanaa da ngay dëbb gën gi luy njëriñ. alhamdulilah loolu euh, pour yokk awra la. gën gi. koo xam ne sa awra dafa gàtt nga bëgg ñu yokkal la ko mu gudd. Hmm. parce que am na su ñoo xam seen awra day gàtt. Hmm. ñii dañ naan damay ñëw du ma yàgg deux minutes laay am. Hmm. ñi ne man sëñ bi fu ma dem dañ naan naa naan ma rab la. maanaam soxna si ñuy nekkal mooy am rab bu leen di. soxna si nga xam ne moom la ñu nekkal. moom moo leen di am rab bu bon boo xam ne dafa leen di fiire. moo waral seen awra di gàtt ba duñ mën a sëy. bu dee kooku dañuy jël rab bi spécial rab bi la ñuy jël dañ koy rey. bu ma reyee rab bi ba def li ma war a def ba jox la ko. foo mën di toll ci àddina sa affaire bi day jóg taxaw. te da nga mën a yàgg. xam nga loolu dafa laaj sutura. moo tax bëgguma ko di ko wax ci internet bii. kon daal gënd gi loolu la njëriñam. gënd gi ku bëgg ñu yokkal la sa awra noo bëgg mu toll ko. bu la neexee dana la koy yokkal ni nga bëgg mu toll ko sa awra toll ko. bu la neexee sax ñu am lu la defal loo xam ne da ngay mën a yàgg. nga mën a say 24 heures te loolu du la wàññi dara. macha allah. Mm-hmm. loolu am na njëriñ ñoom. waaw léegi bii nag moom. léegi waaw ci boobu euh, laa bëggoon leeral. Mm-hmm. mais dafa bari ay ñaan euh, ahuma saxakun xalakun yesul. Mm-hmm. ahuma saxakun xalakun xam nga euh, nit ki bu fekkee ngay da fekkee dangay wut xam-xam. da war a xam lépp xam-xam bu ñuul xam-xam bu weex. xam karaama karaamatu xaqiiqa. nga xam lépp. xam nga sëriñ bi ñaanal nit ku weex yombul ci àddina surtout fu mu toll nii. Mhm. li mooy ahama saxakun xalawxun jasum lii képp koo xam ne defal nañ la ko ba nga sangoo ko sept jours. Mhm. askan moo bokk yaa fay ëpp alal yaa fay gën a riis sewtur moo fay gën a yëkkatiku. macha allah. incha allah ci kàttanu yàlla. mooy xaatim boobu waaye dafa ànd ak jaaro. ah day ak jaaro. dafa ànd ak jaaro boo xam ne dañ koy liggéey jox la ko nga takk. Mhm. doomu aadama warul jékki jekk rek di takk jaaro parce que jaaro boo koy takk rek dafa am lu tax nga war a takk jaaro mm-hmm. man mii lu may xam ne secret jaaro am na sirru jaaro am na dan mm-hmm. ma tax takkuma jaaro te xam naa ay jaaro yoo xam ne képp ku takk foo mën di jaar tàkk mm-hmm. des fois da nga sax naan moom am na loolu du ko defal boppam di ko defal boppam am na si ñoo xam ne waruñoo takk jaaro loolu moo tax kon jaar dafa am ñu ko moom dafa am ñu moom jaaru carrément am si ñoo xam ne moomuñu ko waaye li wér-wér daal mooy lii Mm-hmm. jaaroo lay àndal ba képp koo xam ne defal naa la ko ba nga sangoo ko. Mm-hmm. foo mën di jaar ci àddina da nga tàkk. macha allah dégg nga noonu mu ko waxee muy eh, ci xam-xam bu leer bi mm-hmm. Serigne Cheikh Niane boo ko bëggee jot jëlal numéro baa ngi noonu 77 886 65 65 mooy daw noonu suuf écran bi Serigne Cheikh eh, bëgg naa ñu wax tamit ci wàllum sangat ndax gis naa sangat gis naa ñu def ci ay kayitu xaalis sangat boobu gan lan mooy njëriñam alhamdulilah eh, sangat dafa bari ay façon sangar bi li nga xam ne moo ko tax jóg mooy hmm. koo xam ne dafa bëgg am alal wala koo xam ne alalam dafay yàqu hmm. lépp loo xam ne am na ko dafay tasaaroo hmm. wala képp koo xam ne dafa bëgg euh, commerçant la wala koo xam ne euh, de voyage yi di dem ak a ñëw nga xam ne xaalisam day tasaaroo complètement dara mënul taxaw ci loxoom li ma àndal gis nga ko kayitu dix mille mi ngi ci juróome la ko expliqué gis nga ko lépp lu ñuy jël nga sangoo ko ñu jox la ko bu fekkee euh, nekkoo fi bu fekkee yaa ngi ci réew mi. Hmm. nan la ko defal ñu jox la ko bu fekkee nekkoo ci réew mi sunguf lay doon ñu am lu la sa defal wax la ñoo koy defee nga boole koo xaalis fa nga nekk yow. Hmm. réew ma nga nekk. Hmm. maa ngi lay ci yàlla bis moo ko defee mu mën di jaar da nga takk ci àddina loolu lu mënul nekk la. moom sàngat bi. boo ko defee foo mu mën di jaar ci àddina da nga tàkk. te yow dama la si jox nga yóbbu nga sangu. ci kattanu yàlla suñu borom incha allah. incha allah mhm. jërëjëf loolu am na solo faaw ma faaw ma mos ci moom ndax faaw ma am xaalis. Mhm. waaye sëriñ bi mënuma tëj te wax mooy que ni ma ko tàmbalee ci élection yi. Mhm. coow li bari na Ousmane Sonko. Ahmed Aydara. Euh, Alioune Sall. Macky Sall. non naka nga jàng Ahmed Aydara na ko askan wi jàppale nit ku baax la. moom Ahmed Aydara nañ mu def tout ba fexe jël élection yi di ñëw Ahmed Aydara. Hmm. gisuma benn producteur boo xam ne gën na ko gore. nit ku baax la te lépp loo xam ne digg na ko nit dina ko def. ah sëñ bi daa mel daa mel da nga ñaanal am ay déedéet di ko dugg non non du ma dugg foofu. nit ku baax la koo xam ne. askan wi bu ñu ko fëyul rek. ñu leen wóor ne ñoom ñu ngi ciy ay tooxi duna. Alioune Sall nag man du ma wax ay waxam. xaw ma kan lay xëccool xaw ma ku mu xëccoolut waaye Ahmed Aïdara ci boppam. askan wi géej waaye bu fekkee bëgg nañ jàmm. ñu jël Ahmed Aïdara ñu fexe ko fal. bis buñ ko falee dinañ xam ne am nañ maire boo xam ne maire la boo xam ne ho moom Ahmed Aidara Ahmed dafa yaatu nit ku baax la. waaw Ousmane Sonko nag loo loo ko gis. Sonko tamit nit la koo xam ne am na tour trop. mais mystique bi dafa manqué cent pour cent. mystique bi Sonko. waaw. gars yi dañoo jàpp ne mystique la mais Ahmed Aidara ci boppam sarax Ousmane Sonko sarax. sarax moom moo tax mu am pouvoir sarax bi nga xam ne mi ngi koy def di ko saraxe moom mooy tax mu am mu am sécurité. ah kon Sonko daal daa daa fonk sarax. Sonko sarax moo tax mu agsi fii nga xam ne fii la agsi. mais nekkul koo xam ne dafa gëm mystique. cent pour cent. nit mënu ko mystique ba jàpp ko loolu mënul nekk waaye ni may wax ak yow nii moom. mën naa doon président mais du gaaw de. du gaaw tax déedéet du gaaw de mën naa am tur mën naa am lépp ci àddina mais pour le moment pour mu doon président moom Ousmane Sonko. Hmm. loolu nekkul loo xam ne li gaaw la. Ahmed Aïdara nag du ndaw moom mooy tax mu jël mairie Guédiawaye bi. du ndaw moom moo tax mu jël mairie Guédiawaye. waaw. kon ñoo ko déggandoo loolu dañ dañ ciy def code. Hmm. képp koo xam ne bëgg na lu ko lu ko leer ci loolu. Hmm. boo woowee Serigne Cheikh ci numéro yeeg daw ci suuf. Euh, dina la ko leeralal. xam naa ni liñ joxoon ci waxtu xoj nañu. Mhm. yan kàddu yi yëkkatee jotaay bi. di ñaanal Sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général ku murid yàlla yàggal ko fi. amiin di ko ñaanal Sëriñ Bass Abdou Khadir. nit ku baax ndeysaan. Mhm. di ko ñaanal mboolem tereex yi nekk Sénégal yëpp. Mhm. ak képp koo xam ne euh, yaa ngi yow diwaanu Sénégal yàlla suñu borom dafa la jàmm ci Sénégal. yàlla na Sénégal sax si jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Serigne Cheikh ñaan dégg nga ko noonu ci xam-xam bu leeral bi bi nga xam ne leeral na ko fi mhm. ñëw tamit ci wàllu basmala ak ndomba yi nga xam ne mu ngi koy joxe ak mhm. kànnaar bi nga xam ne mooy dox ci wàllum noob mhm. ak gën gi nga xam te ne ko tamit dox ci wàllum yokk awra ak sangat bi nga xam ne moom mooy ubbeeku wàllum xaalis ndax ñoo ko gisandoo noonu kayitu xaalis yi ne ci biir képp koo xam ne rek am nga ci dara loo xam ne leerul ci sa ci sa nopp wala leerul ci sa bopp boo ko woowee ci numéro yooyu daw ci suuf ci suuf écran bi